داري وثبتنه بالهادي الوفي waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki réew mi ñoo ngi fii ci Porokhane yàlla def tey ñu ñëwoon fi ma ànd ak Cheikh Abdoulahi ñas bu Medina Baye di sëtu El Hadj Ibrahima Niass ñu nekkoon di waajal sunu forum bi nga xam ne moom la ñu war a def samedi le 2 février fële ci Dakar Radisson ñëwoon di ziyaare ci sëñ bi ngeen indi ko daawatu salaf mooy li ñuy wax leetar bi nga xam ne moom lañ ko jox pour mu xam ne fii lañ bëgg dem ak fee bëgg dem gannaaw bi mu dalalee Touba ba pare far yàlla dogal ñu ñëw fi nag tombe ñi nga xam ne ñooy daayira mu xaddamatu xidma da daayira mag bi nga xam ne ñoom la Cheikh Mamadou Muntaxa yeesalaat ndigal li jox leen pour ñu sàmm saytu xormay Touba rawatina sàmm xormay jumaayu Touba ak li ko wër ñooñu tey lañ fi dajeel tey alhamdulilahi rabbil alamin bi ñu dajeeg ñoom nag yàlla def même jataay bi ñu ñuy toog fekk mooñ ci boole ñu doon gaaral sëñ Muntaxa seen liggéey fi ñu toll ak li ñu jot a def euh, sëñ Muntaxa jox leen ndigal loo xam ne suñ kanam la ñoo ko fekke ci kanamu Cheikh Abdou mu yëkkati ko ci cen gi nga xamee ne euh, sëñ Muntaxa Mbakke yeesalaat na ko ndax diine dañoo wax ne ahkaam yi mooy atte yi buy dox dafa war a dox dëppook jamono ndax lislaam euh, diine alxuraan wala lislaam moo jiitu jamono ndax yàlla moo jiitu jamono moo sàkk jamono kon saa su day tëral ay mbiram loo xam ne dana dëppook jamono moo tax bi nga xamee ne kenn googu nga xam ne sëñ Abdoulaye Mbacké radiyallahu anhu fixé woon na ko ci bu njëkk ci euh, ay ay daanaka matul woon ay ay junni euh, tey jii bi demoon demee ba dox ak li ñu mën tuddee évaluation maanaam maanaam dévaluation bi am ci wàllu xaalis ak économie ni muy doxe